ñaar nu bokk ñoo lànk daldi ne lii lañu xelal ñiy jiite réew mi nañ ñu wax plan yeesal boobu ñu ne woon dafa war a defaraat Senelec defaraat taxawaayam jox ñu énergie bu bu sell ci njëg gu am solo boo xam ne mën nañ ko supporter fan lañ ci toll ca plan ba ndax wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey bu sori ak ay poñ yu am maanaam ma ci biir fan lañ ci toll ndax ñu ngi koy doxal ak nañ ko doxale conseil d'administration Sénélec pratiquement présidence la ministère des finances ñaar caisse de dépôt et de consignation ak euh, looloo ci am solo ñu ne kon conseil d'administration boobu na représentant personnel mu am tamit ay représentants société civile parce que li ñuy liggéey ñun askan bi lañ koy jébbal ñu wax tamit ne bu ñu bëggee dëkk bi baax ñu bàyyi rek benn nit di taamu kaka neex mu def ko directeur général société te kii di directeur général société euh, sénélec. ñu wax la ñuy appel à candidature maanaam ñu ubbi ko seet ci askan bi woo ñépp ñi nga xam ne seen xel màcc na ci loolu mu ñu càmbarleet ba seet kan moo ko gën a yelloo kan moo ko gën a mën ba mu fexe ba téyal ñu suñu société boobu ba mu mën a dox ñu wax tamit ne ci suñu seetlu jàngoro ji ñu gis ci contrat Akilee yemul ci boobu contrat yi seen Senelec signé ak yeneeni société yeeg sex excelec ak yeneen ak yeneen ah, ba fi ñu toll nii ay gré à gré ak yu bari ñu ngi ci biir ah nañ ko audité te lu mel ni ne OFNAC lu mel ne cour des comptes lu ko mel ni inspection générale d'État ñi nga xam ne ñoom quand même parce que Senelec société boo xam ne ba léegi as askan bi ñoo ci ëppale ñoo ko moom nañu ñëw càmbar contrat yooyu bu mu mën a méngoo ak yoon ñu ne tamit gannaaw am na ay société yoo xam ne doomu réew mi ñoo ko ñoo ko ñoo ko créer ñoo ko defar di xaatam di di liggéey ci loo xam ne lu am solo la ci fi ñu toll nii lu mel ne la Akilee di liggéey ak ñeneen ak ñeneen baax na bés bu ñuy wut ay société yi ñuy liggéey ñu seet ci société yooyu jox leen ko du tere nañuy doxaleek ñoom mu ànd ak set ànd ak leer ànd ak sel ci noonu tamit gannaaw société contrat bi yi ñuy wax dafa am lu ci lu ci lëndëm dafa am lu ci ñaaw ba nga xam ne dañ ciy perte nañu defaraat contrat yooyu Senelec ba nga xam ne lii liggéeyam muy ñu jox ñu courant bu set ak sel ci anam yoo xam ne nit ñi mën nañ ko fay ba pare entreprise yi ciy liggéey du leen gaañ ba seen chiffre d'affaires di yokk ñu liggéey ko parce que loolu mooy liggéeyu Senelec te bu ñuy tamit ne dégg nañ ne mën na am état bi xoolaat contrat bi ak ak ak ak Senelec ak Akilee maanaam renégocier ko su boobaa tamit nañu fexe ba nga xam ne askan bi du ci pertaat parce que lañ doon ñaawlu naan 184 milliards sur dix ans nañ ci bàyyi suñu xel bu baax taxaw ci ba nga xam ne beneen lu lëndëm du ñëw ci renégociation boobu nga xam ne lépp lu ñu yoon ca kaw ñu di ko kii ñu defaat ko ci suuf te askan bi du ko yëg fa ñuy mujjee tam ci poñ boobu mooy suñu dëkk bi niñ koy doxalee war nañ ko seetaat bu baax a baax a baax a baax ndax mi ñuy gaañ nit ñi delloo gannaaw te tant ñi ngi continuer di doxalee noonu bépp xaalis bu ñu mën lebal senegaal bépp xaalis bu sa entreprise Sénégal liggéey bépp xaalis bu askanu senegaal fay lempo fay leneen buñ ko denkee ñooñu ñu koy pasar pasaree di ko liggéeyee ci anam yu demee noonu duñu ñu mës a jëm kanam loolu nañ ko seetaat doxalee neneen